salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyu yom contentement jën ak sax suba nga indi leen li gën a fas ci bopp xibaar yi laataa loolu nag comme ni ñu koy defee toujours damay nuyu ñëw feggoon rek Assane Waalo nuyu naa la. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay amaan mbégte jàkkaarloo internetu Leewtoo TV pour indi leen li gën a fas ci yéenekaay yi. mardi 16 février 2021 journal suñu làmb xëy ci xëtam mu njëkk défi fou de Bombardier au lion de Guédiawaye maître Balla Gaye 2 à ni nga ko waxee noonu la ndey Mbacke tey journal suñu làmb xëy ñëwal ñu ci Bombardier nee na le defi fou de Bombardier mooy. mu remettre Balla gay 2 à sa place ñu fàttali que ne Balla Gaye 2 wa ak Bombardier war nañu retrouver pour la deuxième fois combat boobu nag Gaston Mbengue moo ko tëgg euh, ñoom ñaar bi njëkkee daje mi ngi euh, mi ngi mi ngi amoon ci le le 8 juin 2014 boobu nag Bombardier daane Balla Balla Gaye jël trophée bi maintenant ñu war a dajawaat journal suñu làmb mu ne le defi fou de Bombardier moom mooy remettre Balla Gaye à sa place. combat bu nar naa mel ndax Balla Gaye daan na la daa lu ko naqari mënal ko fayu ñaari yoon fan jëm 9 novembre 2020 16 février 2021 les 100 jours de Bira Sène à la tête du CNG. dëgg la Ndeye Mbacke Bira Sène bi mu nekkee ci CNG ba léegi am na 100 jour ndax mu ngi ne ñu ngi ko faloon. le 9 novembre 2020 tey ji le 16 février 2021 donc am na fa 100 jours ci 100 jours yooyu nag euh, su journal suñu làmb nee na euh, Bira Sène euh, posé na deux actes forts mooy la baisse des prix des licences ak la réintégration des arbitres radiés mooy arbitres yi radié woon mu intégré leen ba pare baissé prix licence yi prix licence bu promoteur yi jëlee na ko ci 500000 indi ko ci 200000 euh, promoteur lutte avec Fra bi jëlee na ko ci 100000 yóbbu ko ci 75000 euh, licence su lutteurs yi jëlee na ko ci 10000 indi ko ci 5000 bu dee lutteurs yi lutte sans sans Fra bi la jëlee na ko 5000 indi ko 3000 day baax. mi mel gaa yéen koy bàyyi xel. Balla Gaye de Gouye Gui Siteu gagné pour le défunt coach mu mel ne rek ñaañooñu ñett ñooñu sax laa am nañ sas bu mag a mag a mag. la Ndeye Mbacke. Balla guy gi ak Siteu ñoom ñëpp dañoo perte seen coach léegi nag euh, journal suñu làmb ne ñii dañoo war a gaynde euh, gagné pour euh, leur défunt coach maanaam sargal wala njukkalee ko seen coach yooyu génn àdduna Balla Gaye perte na fii Balla Gaye 2 perte na Balla Gaye 1 guy gi perte na Mor Fadam Siteu perte na bu yàggut Alioune Diop nee nag seen ko yi ñu jëm war nañ ko gañe pour sigil seen coach yi. ba léegi Léopold André Sarr écurie Mbour Bombardier j'avais pris du recul pour me soigner. dëgg la Ndeye Mbacke kii nag kun xamoon la ci làmb la surtout ci lutte simple moom mooy Léopold André Sarr nekk ci écurie bi tudd Mbour Bombardier moom nag nee na lu tax mu gëj ci làmb ji mooy dafa euh, jëloon recul pour euh, su euh, faju ndax dafa feebaroon nekkoon na ci làmb ci feebar. donc mu jël recul pour faju wax na nag combat yi ko gën a marqué ci wàllum lutte simple nee na contre Malal Ndiaye la nee na ko euh, boobu bi mu koy bi mu dajee ak moom kenn xamu ko moo tax bi mu ko daanee affaire boobu euh, neex na ko trop. yaakaar naa loolu bokk na ci lu ko relancer. Mhm. pour bien préparer son combat contre Xoyantaan Double Tyson se confie en Gambie. dëgg la Double Tyson moom euh, mbëru Sénégal la mais moo war a daje Xoyantaan Xoyantaan nag moom mooy roi des arènes ci Gambie. moom nag pour préparer combat boobu dafa jógee Sénégal dem Gambie lu tax mu dem fa nee na Sénégal dafa am couvre-feu boo fi nekkee di entraîner da nga koy précipité da doo nekk sa jàmm ndax dangay xalaat couvre bi loolu tax nag mu dem Gambie entraîner na fa calmement pour mën a jëflanteeg bu baax xoyantaan moomu. ba léegi ci jeune ba ñu gëj a gis Lac Rose écrit face mon combat contre Modou Anta m'a plus marqué. dëgg la Ndeye Mbacke Lac Rose bu écurie Fass moom nag rubrique Leewtoo lañ ko invité li mu fa xamle moom mooy combat bi ko gën a marqué ci carrière moom mooy combat bi mu amal ak euh, Modou Anta mi dëkk ci Thiès combat boobu nag euh, Lac Rose Lac Rose dafa wane woon lu rëy euh, wane fa combat boo xam ne nii ñëpp ñu ngi koy fàttali mu daanee fa Modou Anta jël bu rëy rëy mais wax na également lu mën a togg ci plat bu mën a togg nee na ceebu jën daal moom mën na ko trop comme jigéen bu ko palaam bu ko toggee doo xam ne ni jigéen moo ko togg wala moom maanaam mën na ko wax na également euh, lutteur préféré nee na daal képp kuy champion ci Fass rek moom neex nga ko. waaw Lac Rose tane nga ci mbëri ñi nga xam ay homme la dañuy toog ak expecté yaa leen tane ba léegi ah, kàddu ga jig ma date bi daanu la le 20 mars Bombardier combat ba ca MMA. dëgg la Ndeye Bakke Bombardier ginnaaw bi mu daane Rocky Balboa daane Daniel Padmore. Pat Pat Mor léegi am na troisième combat bi ku war a dajal moom mooy polonais bi tudd Maris Pudzianowski ki noonu la tudd xam naa ne tur bi ñàng na <laughs> mbokkam Lewandowski la bi di attaquant bu nekk ci Bayern Munich léegi na combat bi mu ngi war a am la 20 mars sa Varsovie Varsovie moom mooy capitalu Pologne léegi mari Maris bi am na 20 combats ci MMA 13 victoires 7 défaites nekk na également cinq fois l'homme le plus fort du monde wala au monde. ba léegi ah ñu koy ñaanal Bombardier mu am ci ndam lu kawe kawe kawe ndax Sénégal lay lay lay représenté. Mm-hmm. ba léegi ci beneen jamono ah, loo xam te ni am na coow le 4 avril Sambay Fall ba léegi tient à son date. Sambay Fall tient à sa date du 4 avril noonu la ko suñu làmb waxee ñu fàttali ne euh, Gaston Mbengue jëloon na date boobu bëgg ci tëgg Eumeu Sène Lac de Guiers Sambay Fall nag ñëwaat na fàttali ne nit ñi ne date boobu moo ko moom te li ci fas yéene tëgg moom mooy Coly Faye ak général. ba léegi ah ci kañ jëm mooy 2 Ziga 2 Ziga Cheikh Super Étoile en renfort pour le 4 avril. dëgg la euh, Sambay Fall ginnaaw bi mu confirmé ne dadu 4 avril boobu moo ko moom war ci tëgg Coly Faye ak général jël na beneen combat toftal ci moom mooy 2 Ziga ak Cheikh Super jamono nee na combat bi daal bëgg na ko indiwaat toftal ko ci combat be def ko le 4 avril boobu ñuy wax. Modou ba léegi ah Modou Anta sa sa sa barricade. oui Modou Anta moom depuis combat bi mu dajee bi mu taxawee moom ak euh, Dieng kenn mënu ko gis il est introuvable le journal suñu làmb wax nee na Modou Anta sa barricade kenn mënu ko ñu ngi koy seet mais kenn mënu ko gis laaxatu na di ne loolu lépp pour waajal Dieng Dieng mii mi adversaire am. ba léegi ah ci daal ñu ngi leen di daal ñu ngi en Istanbul. Mhm. yu daal yu daal ñu ngi à Istanbul Istanbul moom mooy capitale Turquie je pense su mu jumbul moom mooy capitale ba léegi nag moom nee na nee na voyagé na Istanbul depuis une semaine léegi voyage bi nag nee na bu fa demee dina fa jéem a trouver ay partenariat ak sénégalais yi nga xam ne ni ñu ngi foofa si Istanbul lu tax pour mu convaincre leen ci huis clos bi amee ñoom ñu mën a jënd PPV bi. loolu mooy xibaar yu gën a fës suñu lamb dañuy jàll ci journal record lutte. reprise annoncée des compétitions comment le CNG compte contourner la couvre-feu. dëgg la euh, Abou Ndour moo nekk journal Record tey moom lim ñëw moom mooy dafa bëgg montrer nan la CNG di contourner couvre bi léegi dañ ne euh, saison bi moom léegi mu ubbi loolu moom leer na maintenant nag couvre-feu bi mu ngi fi te làmb day faral di dem au-delà de vingt et une heures comme couvre bi mu ngi fi nag nee na CNG bi stratégie bu mu jël. mooy jël euh, débuté combat yi 15 heures pour mu jeex 18 heures su defee nii ku nekkoon ci làmb ji dinga mën a ñibbi avant ak couvre-feu bi di commencer. Mm. yaakaar naa loolu mooy lu gën laataa loolu nag damay jaajëfal équipe bi yëpp ah loolu moo nekkoon li gën a fës si bopp xibaar yi Assane Waalo looy tàggatoo di la remercier Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa Linguère di remercier Yacine <laughs> Yacine Fall di remercier internetu Leewtoo TV di leen jox dig daje ba suba ak jàmm allah. di leen jaajëfalaat bu baax ah, internet Leewtoo TV gis nañ commentaire yi et tout yéen tax ñu nekk fii di leen indil li gën a fës ci boobu xibaar mooy suñu yitte di jaajëfal équipe technique bi Mansour Yacine Ousmane sama gaa yi jaajëfe naa leen bu baax a baax Ayda ah. fàttewuma la Matu maa leen di bëggee bu baax leen jox ndig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV